on est des professionnels ci li ñuy def. macha allah koo fu dem këram xam na ni. dafa ñafe laay ah fa. Oh, fii on est parti de rien du tout. Mm. am na ci ay tàkkusaan yoo xam ne ay bés yoo xam ne tey nii. Mm. bi ñuy débuté suñu carrière boobu amuñu lu suukar baraada. Mm-hmm. mais loolu mooy loolu moo lay poussé. Mm-hmm. tey nga bâtir sa life. Mm-hmm. xataraay bi am na si ñoo xam ne ay guddi yoo xam ne nit da doon fii tey am na fi ku fi ne jaar nga fi. entraîné ba pare dajale sa. dajale sa kër mburu bu lépp mburu bu ko woo ah. ay ceeb téeméer jël lekk ko xam nga bëri ay tàkkusaan yoo xam ne kur bañu tàkk ni nga boo paree nag sa soxna si war a tooyal morso capp cappal la doo di toog ay une semaine du du sën ko ko ba Balla Gaye rek <laughs> waaye ñu ñal la xanaa sa combat moom lay wax ko <laughs> ba Balla Gaye bañ ko bañ ko tëkkee micro mu naan waa ñu ñëw. su combat beeg moom nga yor. ñu ñëw loolu la yi ñëw quoi di koy bëti fulu. Pape nga waxtaan bi. loolu ba léegi dama koy réer quoi waxtaan bi solo giri moo ne bëri na ay sénégalais yoo xam ne en temps ngi seetaan. j'espère plateau bi dëgër na kët. boo di ko saa boo doon di gaañ ba ca jot la ba yow. bàyyi bàyyi di ziar. président ba léegi doo yàggul wala yàggul ba mu ngi gis stade bi ba président ñu ngi lay ñaan. waaw xam nga waxtaan bi am solo comme ni ko waxee nii dëgg la bëriwuñu amuñu combat defuñu spectacle nañ ñu kontaan mais par rapport bi rek. Mm-hmm. Sénégalais yu bëri eh, seen stress dañ na. parce que ku ci nekk fii da toog koo xamante ni yaa ngi koy gis télé bi da nga ko sopp da ko bëgg. te ji lamb rek loolu la ñu muy wax ñu ngi reetaan ñu ngi kaf gaa yëpp ñuy kontaan donc loolu moo tax est noonu ñu war cee teg loxo président war cee teg loxo bu baax parce que ñi bu ñu ku nekk di wax fi nga jaar sama war a di nettali yëpp Sénégal yëpp dañuy fàtte sax corona bi. parce que mooy loolu. mi de làmb moo ne loolu. Balla Gaye 2 manqué na fi. Ah, moom dafa a il ñu koy ñaanal papaam xam nga waaw. yàlla fëgg boppam. amin amin amin mu tane ak jàmm. amin parce tamit papaam bokk na ci lu ñu xalal. c'est sûr. Euh, ba pare ba pare am na lu am solo euh. muy les anciens gloires loolu tamit bëgg nañ président mu teg ci loxo. jàppale leen jàppale leen waaw. Hmm. parce que suñu papa suñu papa yëpp di problème bi ba dëgg la mais suñu papa yooyu dañoo tëdd xoolal Pape Cheikh Pape Cheikh suñu yooyu ñu ngi tëdd. ñooñu may fi am na su ma metti na te xam organisation bu amoon. bu amoon. ci bu yàgg ci làmb. Ah. kon ñooñu duñ toog fenn di wut ku leen dimbali. dëgg la seen bopp mais ñàkk nga jox leen xaalis mais wutal leen yóbbu leen ñu dem faju ji. mais Pape ñooñu c'était Mbaye Gueye suñu papa Boy ba sonn ñëpp ñëpp. ñu bàyyi leen xel ñu jéem leen faj. Pape ñooñu tey international association bi nii tey moo tax tey dañu ci lancer appel mm-hmm. gars yi ku ci nekk yaa ngi sa carte de membre. gars yi yëpp waaw mi ngi booy ñaam yi carte de membre am. vice xam nga ku ci nekk yaa ngi sa carte parce que association. loolu loolu loolu loolu lay xeex. mooy mbër. association. <laughs> <laughs> am na furir. <laughs> c'est normal. bu déclenché nii reetaan nii. du arrêté non day li mu wàcc. c'est normal. association nationale des lutteurs du Sénégal. Euh, euh. ci jéego yi la nekk mooy. nit mbokkam mm. mm. mm. képp koo xam da nga am jafe-jafe. non soxla nga sa ay mbokk ñëw taxaw. dëgg carte de membre yi. mi ngi nii les cartes de nekk ak sa carte de membre. kii Boy Niang mooy vice président bi. ñëpp ah, c'est vice présidents. xam nga Modou loo c'est un vice président chargé. Mm-hmm. Euh, association nationale. recherche de moyens recherche de moyens mook Balla Gaye. maanaam tey kii occasion la fi tey mbër foo mënti nekk ci Sénégal. Mm-hmm. bëree nag yamul rek Dakar. Mm-hmm. yamul rek Thiès. Sénégal lañu wax. foo mënti nekk. carte bi boo ko amee. ça coûte cinq mille francs. plus cotisation mensuelle. chaque mois 1000 francs année bi day nekk 12000 francs daf ñuy permettre tey ñuy mën a suñu ay activité dëj day am pap nit day feebar dëgg la nga war a tam nga nga nga war a basé wu nga bañ a nga bañ a yaakaar ci tam yu feebar nii bëri dañu feebar gars yi ñun dépassé nañu amuñu moyen dépassé nañu fu ñuy ketee dépassé nañu fu ñuy ay woo ndimbal non dépassé nañu ci cadre boobu mag actuellement nii amul benn assurance bu ma demul amul leen benn couverture couverture parce que je en train de faire coopération avec euh, seen assurance assurance vie mhm. pour tey mu jël en tous les lutteurs parce que cotisation yi moo ñuy permettre tey mhm. ñu defal ñu benn système forfaitaire bu ñuy permettre mhm. mbër mu feebar jël en charge moi je au delà de président lu ah. assurance euh, yenn ci entreprise yi itam ñoom it parallèlement yàgg liggéey ak yéen ñoom itam bu ñu mënee jóg ci euh, jàpp ci seen combat am nañ lépp dafay laaj organisation lépp dafay laaj organisation loolu may wax CNG bi ñu fi teg rôlam loolu da cee bokk exemple mhm. mhm. tey xaalis bi ñu jógee ci mbër yi dugg foofu noonu mhm. war nañ ko mën a utal affaire bi nga xam ne sam la tey ancien gloire yi isam la tey mbëri na ci ay jafe-jafe feebar ak yooyu noonu Pape ñooñu am lu leen couvrir mhm. te dañuy wax assurance nga fay sa assurance assurance bo ci lamb ji la yem tey ñu dóor la nga teppeeku mu dem ardo xol la bu mhm. paree sax pare naa amul mhm. suivi et puis manque d'espoir bi defe naa moo indi beneen phénomène muy phénomène MMA yi euh, mbër yu bëri ñu ngi bàyyi lamb ji di dem ci MMA loolu yëpp ci manque d'espoir